mbokk internet yi bàyyi xel SBT amaan nañu mbégte ak kontaan tey ñëw fii daje ki nga xam si ni ndaanaan la kenn dootu ko présenté ci mim réew seen émission nay riir nag waaye tey nay riir bu spécial la ndax Jimbori wax naa ne la moom la moom la àdduna wër Jimbori SBT nuyu na la ak nam naa la trop billaahi man maa leen raw waa SBT Média gis nga lépp lu waaye seetaan te seetaanoo ko SBT Média barke rasulullahi da ngay SBT di SBT Média waaw SBT Média dee leen ko seetaan man mii ci laa abonné wax dëgg yàlla lépp looy seetaan te seetaanoo ko ci SBT Média wax dëgg yàlla seetaanoo dara parce que SBT Média problème am mooy dafa xam fii fii fii fii fii fii fii miti mu di fa wokk mais ñeneen ñi dañuy tërërëri rek bàyyi leen tërërër yi ca xam li nit ñi soxla ngeen koy wan nit ñi bàyyi tërërër gi loolu rek laa yem kon SBT Média la seen émission nay riir ñu dalal ki nga xam si moom mooy ba seen touche cloche notification bu xam ne SBT mi ngi ko mag bi euh, déw ti baal la àq baal la baal nañ leen àq wax da leen di dérange nga war a baal àq boo gisee may la nga nga baal àq àdduna nga war a baal parce que yow Djimbory da ngaa sikk de non dañoo foog ni damaa sikk rek man sikku ma défaillant yi ñooy jàppe ne mais ñu bëgg lu baax yëpp nekkuñ doomi xaraam ñooñu moom bëgg nañ ma wax dëgg yàlla doomu xaraam rek nga may bañ ku dul doomi raam bëgg na ma wax dëgg yàlla gis ñu ñëw si actualité bi nga xam si ni ba tey nii du fi jóg à chaque fois ñuy attaqué ñi nga ni ñoom ñooy waa Jamra euh, tey ñu gis ne fan yee am na sorte yoo xam si ni donc defoon nga ko am ñeneen ñoo xam sax ñu ngi lay attaqué tey attaques yi nga xam si ni ñi ngi leen koy attaqué yéen ñi nga xam si ni da ngeen di dañuy da ngeen di sàmm euh, lu ñu wax euh, valeur yi Ah, ak yu mel noonu ba pare à chaque fois nit ñi di leen di leen di attaque rawat na ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa Jamra nga xam ne saa yoon génnee rek donc loo xam si donc dafay jëmale euh, Sénégal ci ci wàllu côté éducation bi ak noonu donc tey ban ban ban maam la nga ñu mën wax si loolu waaw xam nga man taayale man ma taxaw ni maam mataar Gueye Jamra képp ko xam ne attaqué nga ko mel na ni man nga attaque waa Jamra ñoom ñooy waa Jamra ñun ñooy waa jam ko parce que ku leen jam ñun ñooy génn jam la Jamra ñun ñoo ànd ak moom képp ku ko wax lu ko naqari laa la wax de man dinaa génn parce que yenn yi munu ko def ñun ñooy génn jàkkaarloog yenn doomu xaraam yi dinañ jàkkaarloog góor jigéen yi dinañ jàkkaarloog giwil yi dinañ jàkkaarloog képp ko xam ne ni ak ñii def film di laqatu ci ginnaaw film yi te nekk cagal ñoom ñëpp dinañ leen dénoncer dinañ leen weer dinañ leen waay waay non. yow lan mooy sa problème ak borom ñaari tur yi Jimbori lan mooy sa problème ak borom ñaari yi da nga am sa bokk. génn wala nu demee noonu. man ay borom ñaari tur musuma bokk si ñoom lijjantiwu ma leen man nag lenn naa la ko wax de gis nga fii ñu bëri ñu am xaalis tey ay jëkkëri góor jigéen lañ mbaa ñu nekk góor jigéen parce que man rek su ma neexoon tey ngeen ma changé wax yi may wax ba pare am sama oto am suma xaalis parce que fan yee passé ñoom ñoo ma woowal seen bopp ci seef yi woo ma ne ma soo bëggee nga takk ma ma jox la xaalis vocal bi mi ngi fi. lépp boo bëggee ma takk la nga jox ma xaalis man kay werante xuuxaan tekki tubay laay def parce que gisoon nga ma fi dëggoon naa fi ndey aadamo man dong maa xam ne moom góor jigéen la bu mag. kon góor jigéen yi tamit téegalaat naa seen ndey ba pare nañ def attention képp ku xam ne yaa ngi yor sa doom fii ci senegal barke rasulullahi boo maytul góor jigéen yi danañ ko takk ñoom am nañ imaam imaamu góor jigéen am na bu leen ñaanala ah. yow yaa ko waaye yow dama ne li ma lay wax nii kay sam portable après laa lay génneel mu leer ñoom kay bu ñu la proposé man woo nañ ma ne ma nañ dem hôtel bi ci Mbuur ñu toog fa waxtaan ak yow proposé ma ne ma am nañ ay oto mun nañ ci jël jox la. mun nañ jël appartement jël nga nga jël appartement bi nekk fa ak sa njaboot ñu lay def lépp loolu ba tey nanguwuma ko ñu demaat ne ma si tabaski gi mun nañ la jëndal xaru mille yaa ngi dégg keneen ki ne ma mun nga def pour mun naa lijjanti nga takk ma boo ma takkalee takkee di ma raccal xam nga di ma wër ndomba di suqi di teg yaa ngi dégg di dawale di buruwet yooyu yëpp wax nañ ma ko man man xanaa bu may buruwet jigéen laay buruwet mais du ma jàpp góor xanaa buruwet ko topp ca ginnaawam góor ni man ah mu ngi nii man kay boo bëggee ma. d' accord génn waale ko génn waale ko mais c'est-à-dire li ma bëgg a xam mooy jëmbóor yi lan la góor jigéen ñi gis yow ba toppal naan la ay bureet maak affaire bi maam lan mooy sa problème ñoom loolu laa bëgg loolu laa bëgg mu leer. xëy na dañoo mës a gis ko gis sama waaxu gis sama suuf rek loolu la rek xam nga góor jigéen bu demee ba nga xam ni puus day xam na lu ma la wax wër ndomba tànn benn ni takk ma takk ma ji mel ni tulleeg male billaahi wallaahi wa taala xoola su ma neexoon mun naa lim fii ay kilifa yu bëri su ma limoon fii seen tur wóor na yàlla bala maa jóge ci gi ñu ñu ci géej gi ay góor jigéen lañ wala ñuy jëkkër yi góor jigéen oto yu rafet yi ay waaye ay kilifa ki may wax ma takk ko kilifa la kilifa la ci dëkk bi ku ñu xam la bëgg ma wër ko ndomba waaw man wër ndomba làmb rek laa ci xam man gëj naa koo gis ay wër ndomba man bu ma la wëree ndomba nan laa lay def ah ba pare demaat mu proposé ma ne ma bu la neexee dama lay indil jigéen bu rafet nga duma kooku duma ma ma ne ko man ma ne ko mbete machine man xam naa ni ci jigéen bi bu ma paree yow la la la euh, bu ma demee ci kanam nan laay demee ci bu euh, ci ci bun wax nan laa koy defee sax moo ma jaaxal wax mu ne ma man kilifa laa yu bëri maa koy organiser fii am na yoo xam ne buñ dellu si waatee dinaa ko tudd waaye nag damay avertir ñëpp ñii taxaw fii naan góor jigéen amul ak góor jigéen du lii góor jigéen laa ñooñu ñooy góor jigéen yi ay góor jigéen yu mag lañ ba pare am na ñoo xam ni dañuy attaqué ay góor jigéen ñoom ñu génn di défendre góor jigéen yi ñooñu moo laa mënut a comprendre. am na ñuy am na ñu nekk si média yi di défendre ay góor jigéen fii ku fi nekk ndeyu góor jigéen dañuy toog ne la góor jigéen nga et puis fii suñu maam yi dañoo xeex ba góor jigéen waaye dañoo xeex dëkk bi ba li fi am am fi ñun duñu toog seetaan ay góor jigéen jóge fële ñëw di yàq dëkk bi loolu duñ ko mës a nangu ñun duñ ko mës a nangu duñ ko nangu tey duñ ko nangu suba duñ ko nangu ginnaaw suba parce que góor jigéen yi gisoon nañ leen ñuy jebbi jebbi man waxoon naa ko fi ñu toog ni leen seetaan góor bañ ko gisee mu xeesal ba weex tàll rocc tuñam sol baa ñoom li ñuy sol du peew de baala la bañ commencé peew peew rakki baala yaa ngi dégg si lañ waroon génn ñoom ñëpp benn wan bàyyi wan doxaan seen ndey mu arrêté mais biñ leen. 50 pays lay la. donc nit ku nekk te actuellement nii fu mu toll kenn ku si nekk am nga droit nga nga nga def li nga xam ne moom nga bëgg a def parce que Sénégal moo tëddee noonu. mais laïcité ji góor jigéen bokk ci laïcité bi biñ koy signé góor jigéen bokku ci amul benn religion boo xam ne dafa nang chaque année chaque année maanaam kii mooy changé texte yi day changé tey boo xoolee tey am na yu bëri yoo xam si ni tey euh, protection de l' enfant ak yenn yenn yoo xam si tey maanaam yooyu yëpp Sénégal ñoŋal na ko ci ay ci wàllu ci wàllu constitution bi ak yu te tey yow yow loolu xam nga ne loolu bu njëkk ba amul woon tey bu jëkk ba benn taalib rek boo xam saa jàpp dóor ko wala dara du mujj fenn mais léegi xale sa doom sax boo ko dóoree suba police mën na laa jël si. waaw loolu lépp boo ko gisee nouvel ordre mondial xawma ma loolu ñu bëgg a di për ñu nit ñi parce que xool nañ xool suñu tarixa yi moo leen jaaxal pour tas senegal gis nga Sénégal fu mu toll nii bu fi tarixa yi jógee mag ñu baax ñi kër yi ñu fi def bis bu ñu xullee ba mu jóge fi rek si la ñuy mënal Sénégal parce que tey nit ki bala nga koo fetal foog nga dugg biir këram mais boo duggul kër nit ki doo ko fetal te ñun suñu kër mooy fan mooy kër tarixa yi nii ñu sanc Sénégal am gëm-gëm gëm-gëm boobu lañ bëgg a dajji moo tax boo dumaa taalibe ñu ne ñu indil la problème mais njàng alxuraan dong moo dagan dóor ci nit ba mu deete dara du la ci topp bu dee jàngale moo la tax a jóg laa wax de parce que léegi am na ñuy defar daara ñeneen dugg ci daara yi di nuroog daara te du ñu daara Sénégal luñ fi war a lijjanti dafa bëri affaire daara yi mi ngi fi affaire mburu mi ngi fi mburu moom bu yaboo ñu teg ko ne lépp li waaye li nekk daal bari na loo xam ne wax dëgg yàlla war nañ ci mën a toog toj ko. seen émission Neur yi wedd gis da cee bokkul li lii ngay wax ne da ko koo yor ko ñu xoolaal ak antana mais di nuyu nag tey dama am ñaari ñaari réalisatrice muy Fat Bintu ak euh, kii. ak aji waaw tey ñoom ñoo nekk si ci technique ku xool image yi ni mu rafetee tey xam ne SBT <laughs> Média wax naa la fu nekk lay jëlee ay jinne ah neexul nii kii dégg nga li mu la wax ràcc la ràcc yu neex mais jimbo ràcc ràcc yu neex kay jimbo nag kii li mu la wax dara nekku si. mais li mu la ay ràcc ràcc yu neex dara nekku man bu may ràcc jigéen laay ràccal wax dëgg yàlla waxal rek mais nekkul góor laay raccal man wax dëgg yàlla su ma neexoon su fekkente ni mel naa ni yenn doomu xaraam yu nekk ci dëkk bi fii nag ay artistes yu bari ay jëkkëru góor jigéen lañ de bëri na ñoo fi gis ñu téegal ndeyam lañ man wax nañ ma seen tur ay jëkkëri góor jigéen nañ billaahi ñu yor oto yu nice di dawal ay jëkkëri góor jigéen lañ kii nu kii nii bu la. artiste artiste dafa yaatu rappeurs yi ñëpp maam artistes yi dafa yaatu mooy ñiy def peintre ñiy def ñiy def art plastique ñëpp bokk donc artiste musiciens yi wala waykat yi kii fecckat yi wala taasukat yi wala wala wala yéen comédiens yi dama ne man daal xaw ma lan la mais am na artistes yoo xam ne ay waykat yoo xam ne ay jëkkëri góor jigéen nañ waaw man du ma wax lu ma leerul ba ma dalee di wax yàgg na te chaque jour maa ngi wax yaa ngi dégg julli gi nii rek am na ku ma ko wax dafa toog mu ne ma yow diw mu ne waaw mu ne sa wax ju bëri ji moo tax tey ñu ngi nii diw ak diw ak diw ak diw jox nañ leen xar jox nañ leen pombiteer jox nañ leen soble mais yow jox nañ leen ganilaa ñu ngi am seen teraanga mais sa wax jii ngay wax nga nga xam ne nangu woo ko bàyyi moo tax kenn du la fi jox xar man ma ne yàlla mi am xar yàlla dina ma jox xar si laa toog bañ ni ginnaaw suba la tabaski gi na mu Mulaay Saw moo ma woo te xoola woo na ku nekk wër sama numéro ba ba ba jot ma ne ma ñëwal jël si xar ma xam ni sëñ bi dama xam ni yàllaa ko yabal si man fekk na kooku wax ma loolu ne ma nee nañ la nga changé sa wax yi nga bañ déggee bëri na ay teraanga yoo xam ne yaa ngi koy ñàkk te te wax ji moo la ko yóbbee. wallaahi léeg-léeg nit woo ma ma wuy mu ne ma nangam moo tax ngay nangam taan ndayam moo tax duñ doo am nangam ak nangam xool ci diw jox nañ ko nangam ak nangam ma toog fi ma toog wallahi parce que bële paase bi nga fi ñëwee tegaloon naa la ñu bëri ñu ma doon menacé dinañ defaat émission ma enregistré yëpp ñi may menacé ay ponkali mag yi jëmm ñoo may menacé yaa ngi dégg góor jigéen yi nag moom leen xam naa ko gis nga su fekkee continuer nañ ñoom di attaqué maam Matar Gueye Jamra dinaa génnaat lim góor jigéen yi ne fii ci dëkk bi jaral na ma sama bakkan ma lim ko ba pare ñoom suñ may ray ray ma parce que pambaay bu fekkante ne dafa toog de xas doomu maam mataar Gueye Jamra pambaay léegi su fekkoon ne góor ñi dañoo def ni mbaay jigéen ñi nekk Sénégal ñoom laa koy laaj de fan la ñuy amee jëkkër laa lay laaj. jigéen ñi Sénégal nga xam ne macha allah actuellement niñ mel nga xam ne tabaarkàlla. waaw jigéen jaa jigéen ñaa ngi mel ni cogalu xar. yàlla doyew leen lu dul ray lakk yaa ngi dégg moom si boppam mu seppiku ci góor ñi ñëw bokk ci jigéen ñi ba pare jigéen ñi nag naa la wax benn affaire léegi yor nañ jikkoy dooma raam joo xam ne nii doo comprendre parce que gis nga jigéen vraiment ñeenti façon ah, ah, jikkoo ngi nii. ñëw foofu li ma bëgg balaa ñu ñëw ci affaire jigéen parce que affaire jigéen ñi moom cas spécial après bëgg naa ñu dugg ci mais fi ma bëgg ñu ñu jeexalee mooy mbiram Mame Matar Gueye attaque yi ñu ko attaque pourquoi nga n ku waxati non maam Matar Gueye maa ko seetlu ba seetlu ko xam ni kii diine rek a ko ñor benn bis Waly Seck doon na def soirée maam Matar Gueye dem dem ci ci Toulouse Waly Seck fekk ji ko li tax mu dem fekk ji ko parce que dafa dem di surveiller pour wàññi wax ji bërki démb seeti na kunkande dafa dem seet ko loolu mu def noonu ñu bëri naan bum ko def waru ko woon a def en tant que kunkande nee na jullit la maam Matar Gueye am na droit dem si moom ne ko ah sa waay kat lii nga wax nangam ak nangam kantan bu bañee mun na kaa bàyyi mun na koo bàyyi. mais mi xool géej gii ak géej gii mu mel mu ne da koy xar tam dañuy wax dëgg mais nag nañ ko bàyyi mu xar géej gi nag yow nag jimboori. non xam nga xam nga tey Sénégal lan laa jàpp dama ne xel yi ñu yoroon moo dem wax dëgg yàlla Sénégal boo génnoon ci biti ba gis yeneen réew yi ni ñuy demee ak Sénégal fi mu toll nii billaahi di nga xam ne Sénégal ku am xel nekkatu fi parce que xam nga lu tax. Kunkande day day day day day kii quoi day comédie nee na bu ma ko xaree mu naan xam nga man parisien laa damay xotti dem Paris est-ce que kooku dëgg la ndax xeesalkat nga xam ne xeesalkat boo gis taalibe seytaane la xeesalkat boo gis taalibe saytaane la yaa ngi dégg xool ko ci maire yi dañuy xeesal dem ba mel ni golo gu ngas du tax ñu bàyyi dem ba seen yaram yi futti pënax xasaw xudnu xeesalkat boo dendal day mel ni mbalit moo denc fukki at génne ko war ko tuur yi ñoom ñoo raw poolu mbalit yaa ngi dégg ak xeesal ni mu bonee kunkaande xeesal dolli ci defar ay lanti yaa ngi dégg rocc tuñ yi toog takk ay morso yu xonk mel ni kuy kaas dara xam naa moom bu dee marche la day marche sa jinne ya ndax yu xonk yooyu mu kii jin pour jinne yi la léegi toogaan nañu day xar géej gi ñu gëm ko yow tamit nag waxal rek kooku day fen. day kàcc day kàcc ba wut ku ko kàccilee ba pare man dama ne su fekkee xar na géej gi na ma ci may pàkk rek ma tabax moom kunkaande léegi yow bu fekkee ne yow bëgg mu may la pàkk léegi te moom nee day xar géej gi du ngeen mu xar géej gi après nga amaale pàkk barki yàlla kunkaande ma wax la benn affaire si confirmation bi moom dimbale na ko du génn sax danaan corona bi la xam nga géej gi amul corona du dara moom ak ndox mi kese la war naa mën a génn xar ko mais du génn ñaari paan man kunkaane lu ma bëggoon nga defal ma ko ñetti potu ndox rek na ko naan potu ndaxu mi baax yi na ci tànn ñett rek naan ko bu ko naanoon waxuma la bët yi mais tuun ngeeg léppay sànni ndox du dara day fen mu ngi noonu jënd otoom bu bees tàq ci bës bi Sénégal pourquoi ñuy ñëw léeg nit ki di régler bës nekk ci lu ko neex ñamax ñamax ji mel ni mbaxal muy bax ñu topp ko ci loolu télé yi di ko invité ba pare suñu tele yi moo nekkatul ay télé privé la nag wuy ma wuy ma lii du RTS de du Chaîne Nationale de lii télé privé télé yi ko invité ay télé privé la. waaw ay télé ah. indiwu ko mais télé bu nekk xanaa bëgg nga si askan bi lu baax waxal ay xale ñi ngi lay seetaan télé ñoom plateau télé yi la ñu war a njëkk xool parce que keroog bi mu ñëwee naan day fay lamp yi fayul gat waa télé baa fay lamp yi bërki démb gis nga fi ñaari nit yu toog si plateau di xeex waxal xeexuñu ñoo monté mise en scène waxal rek DSS kenn weddiwul ni télé bu la Youssou Ndour a wiiri ca gannaaw rocc fiil ga demoon na bay dem Youssou rocc fiil gi. mais li nga wax ni li nga wax ni Jimbori Kara de. DSS télé bu normal dem si biir Youssou Ndour moo rocc fiil bi Youssou Ndour lu mu seq DSS bay la fiilam. sàcc nday seen image la def. DSS demoon na bay neex Youssou nduur ak Ndiaga Ndour ñoo wiiri ca gannaaw rocc fiil ga. mais rocc gi ñu rocc fiil gi nag nañ seen nañu branché fiil gi mais dajalewaat fa Umaro mi nga xam ne moo gën a daanu fël-fël am na mignon mi nga xam ne fu ne lëmbal na fa yaa ngi dégg toog naan ko ay nii ay naa lana lan gis nga Umaro bu amee lu muy wax est-ce que fay na kii fay na mbaaco xaalisam daa yoreel mbaaco xaalis bi xaalisu lan mbaaco mba man problème laa lay jox nii de ma jox la waxi mbaaco man kay li ma bëgg mu leer rek mooy nga fan nga teg loolu. mu ngi nii Mbaaco moo wax ci gémmiñam nee na da koo yoreel ba pare day toog ci plateau yi di gërëm ay géeram di génn di jox nit ñi ay ay ay kii yu koor sukaru koor sukaru koor ganila vingt cinq mille ak yooyu noonu muy séddale balaa ngay mën pépp kay dangay ngay mën pépes yooyu muy def noonu ak mise en scène yooyu muy monter ci DSS DSS wax dëgg yàlla ñu ngi yàq DSS gis nga plateau boobu ñu teg Paco Jackson ba alaaji Diouf retraité la waroon ànd ak alaaji Diouf retraité comme moo doon macro dem na fii ba moo doon régleel alaaji Diouf ay jigéen est-ce que kooku war nañ ko déglu billaahi moo toog ci télé bi wax ko naan après li ci des maam day bànneexu moo ko wax yow Omaro loo ko xam du jàng nekk ci ay tànt bu demee ba génn tànt yi ñëw naan day def émission am yooyu nekk fa bay xeex kooku lan la nar am kuy yàgg jóge Murtani war tax muy yaafus bay ànd ki bay tey ku xam Omaro Seex Béthio tax nga xam ko yal na yàlla yokk ay leeram boo ko yeeyaatoon na ko Omaro ngi ci lii Omaro léegi day peew di def lépp waxal daje faak ñoo ñu perte ñooñu ñu dajale ci DSS ah DSS léegi man lan am talent nekk nag jimboori wuy ma ñi ngay wax ni ñëpp ay artistes yu am talent ay ndaanaan yoo xam ne kenn mënu wax fii te maanaam réew mi génn leen ci bul jaawale ndaanaan ak naanaan naanaan ay naanaan lañ ay naanaan lañ mais li nga wax ni jimboori garaaw na de rasulullahi su fekkoon ne ay ndaanaan dëgg lañ du ñu dem ba ñàkk lu ñu wax ñuy xeex-xeexlu yow tequb abdu miñoom dóor ko njiin mu ànd ak yow daanu jëllub abdu miñoom lu ñuy indil waxal am di jóg muy sànni ko direct ñuy xeex directment loolu ban njëriñ la amal bu fekkonte ne komba moo tax mu jóg kay combat kay sawaay wax dëgg yàlla direct yi ñu doon direct ci combat yi te am ku ñëw wommi seen direct ya di ko direct duñ dem song ñooñu xeex ak ñooñu waxal xeex la Ndiaye tuuti waxal. SBT Média la seen émission nay riir ñu ñu invité. <laughs> ñoo jaar ca gannaaw ci nday filga mi ngi noonu ñu invité ki nga xam ne moom mooy Jimbori mi nga xam si nii wax naa la saa yook invité coow li bëri saa yook invité dëkk bi ah mais Jimbori ñu ñëw si ci actualité beneen muy muy muy jigéen ñi mu mel ni que tey euh, li ñuy wax ay valeur ci jigéen ñi li si ëpp li si ëpp dem na. waaye valeur dafay deseti est-ce que ay jigéen ñi ngi fi xam nga la la moo jigéen mooy jigéen te jigéen ñi loolu nekkatuñ si ñoom jigéen ñi koo si gis buzz lay wër. billaahi wallaahi jëlal ma benn jigéen ne ko dama lay wutal liggéey yow yaa koy woo moom du la woo liggéey suuf gi rek moo fi dox. ma ne li nga wax nii garaaw na. man ni bëri na kaay wax la dara am na ay kilifa yu nekk ci dëkk bi. appartement yëpp ñoo ko luyee est-ce que xam nga lu tax Dakar appartement yi seer xam nga ko kilifa yi ñoo seeral appartement yi da ngay gis kuy fayeeku un million cinq cent appartement am lay jël jox ko benn booyam gel bu mu for indi ngolli looloo tax appartement yi seer ñoom kilifa kilifa yi fi nekk ci dëkk bi ñoo luye appartement yi barke rasulullahi ñoo ko luye maa bañ a wax de mais am na doomu xaram yoo xam ne mun naa la ko tuddal fii ñoom ñoo luye appartement yi di ci yóbbu xale yi ku ñëw ne leen damay wut liggéey ñu yóbbu la fa ngolli boo ñëwee ne leen sama yaay saaku ceeb ñu ngolli boo nee leen sama doom day jooy kuus ñu ngolli boo nee leen manqué naa dépasse ñu ŋolli ŋolli nañ ba xamatuñ lu ñuy ŋolli ñuy ŋolli jabari jàmbur yi wee doom yu bëri seen baay juru leen ŋolli mi la. moo xew di wax ma rek. léegi fi ma bëgg ñu ñëw fi mooy mooy actualité bi mooy affaire Léna Gueye bi lomotif bi nga xam ne def na ko ci série nga xam ne moom mooy infidel mu mel ni que jotoon naa la fa jël sax nga am loo ci wax mais mu mel ni bii moom jaaxal naa dafa gën a garaaw. ma ni bañ njëkkee daje lu ma la waxoon si infidèle waxuma la woon nañ def attention si infidèle comme ni ma ne woon nañ def attention si biisu bu yàgg laa waxoon nañ def attention si biisu biisu lijjanti ñu may saaga yaa ngi dégg bii waxoon naa la infidèle xaw ma infital la infetal yaa ngi dégg mooy fetal askan bi infetal la mooy fetal askan bi ne woon naa leen infidèle nañ si def attention leen a géy ba mu njëkkee génn génn filmer filmer bajoom wan ko nit booba la ñu waroon génn téegal ndayam te Léna Gueye su fekkoon ne dafa nar a baax rek carrément carrément mu dem am jëkkër ju mel ni Balla gay dana fa xar tànki tubayam parce que Balla xawuma ko de xamuma mais ni ma ko gisee carrément bu bu fekkoon Léna mel na nu mu war a mel Balla du ci mucc mais ba ci Balla muccee la ñu xam ni am na ñoo xam ne bu ñu waroon a tas sax ñun ñoo war a taxaw di saraxu ña leen war a fase parce que bu ñu duggaatee ci askan bi ay combattant yu ñaf ndeyam la ñuy doon dañuy dolli doomeeraam ci dëkk bi Léna Gueye boo ko xoolee jàng ko bu baax a baax a baax xoola nga toog ak moom jaxaran waxtaan amul bopp amul bopp non ñi ko xam ñoo ne ma amul bopp xel mi baaxul xelum kopp la yor yow yow boo demee ba nit ki wan la ginnaaw si mi sa si mi sa fermeture nga ne pat nga simmi sa silib devant askanu senegal devant mondo bi yëpp nga simmi sa silib dung isrin may waxaan mu taawi ko wan ko nit ñi aj ko langal ko ah di ko wan di wane ni ma tey te Amari Badiane ak kële lan lañ leen jàppee du foon billaahi bu ma doon Amari Badiane ak Amet Thiou buñ téegalul nday leen a gay mii billaahi ma génn téegal nday ña ma tëj barke rasulullahi yow Amady Badiane ak euh, Amathou seen loolu ñuy def noonu même même si clip bu Papa Thione yàgg sax daanañ daanañ fecc maanaam daanañ fecc foofu noonu mosu dal ñoom nag ñu ngi ko siy doog a dalale def rek ñoom yaa ma ñoom daanañ fecc di di def gémmañ ak gémmañ mais daawul dal bii lañ ko dalal xaw ma lu tax ñu mu dal moom tamit yow góor ni mu mel gémmañam ni mu mel xamu leen dara xanaa dañoo yàgg moo tax ñu bëggante yàgg gin yàgg ñu ñëw ba tey si affaire affaire affaire affaire leen géem comme ni nga ko comme ni nga ko waxee lii kaaw ñoo amoon di ba jaan gis nga Sénégal yëpp ku nekk coow affaire yooyu mais léena nga jigéen nga xam ne jigéen bokk na ci manque suñu suñu borom yi nga xam ne suñu borom ci lay denc ah jigéen tey euh, bokk si ñi nga xam si ni tey fu lislaam toll tey jigéen am na ci part de responsabilité bu rëy rëy rëy ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam kenn mënu ko wax te tuddoo jigéen tuddoo jàmbaar muy soxna Khadija tey Sénégal fii rek tout récemment mënoo ko wax mënoo fi wax te tuddoo soxna Maam Jaara Buso nga xam ne fanweer at ñett la dund 33 ans mënoo fee wax soxna maam Fawa Debele yaay maam Alaaji Malick ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne tey mën na leen wax fii nga xam ne si moom moo ci réew mi nga xam ne ay jigéen ñoo leen meññi te seen tur ba tey nii boo ba léegi jóge na ci mais seen tur ñu ngi continuer di exister dinaa la wax lu garaaw est-ce que xam nga yàlla si boppam jigéen ñi fi juddoo da leen di peinture jox leen tubaab yi ñooy juddoo ca tubaab yi lay ñuur indil yéen loolu ngeen comprendre affaire yee weccoo ñi waroon di judd fii tubaab yi dañoo jël suñu lépp bay jël jigéen ñi fiy juddoo léegi fële la ñuy dem ñu pentir leen ñu nekk nit ku weex nekk tubaab tubaab ya la ñuy pentir indil ñu jigéen ñi nga doon wax denc ngëneel xawma du jigéen ñii ma gis leena de moom bu fekkee nii la koy defee yàlla dencul dara ci moom am fit bu tol na ñay wala moom askanam wala bàjjanam wala kan la mës a gis muy simmeeku am fit wu doow lu kenn sañul ci senegal leena moo ko njëkk a def leena bon bu doon ginaar la ba mu dee leenaa lekk gat ga Balla Gaye yay bàyyi ko lii moo daan daaneel Balla Gaye Balla Gaye feebarul woon kii bu àndoon ak moom sëriñ munu ko ñaanal ci àddina leena ngay mi wallahi leena lii danga ma koy may lii moom ak cagatu la nga pare gis nga aar xam nga luy aar aar aar le aar ñun ñëpp a di wax aar boo demee ci angale bi aar boo demee si français bi aar aar mooy aar li sa maam bàyyi moo tax mu tudd aar ñun suñuy valeur moom moom la ñuy aar moom la ñuy aar mais aar bii ñii di def ba pare ñi ngi tooñ artistes yi ñi ay comédien ñooñu duñ ay artiste ay décor lañ bu leen jaawale artiste ak décor parce que bi fi Cheikh Tidiane Diom nekkee bi door nekk fi groupe jamonoy tey nekk fi saa noxo nekkoon na fi Kouthia nekkoon na fi euh, Sa Ndiogou mii nekkoon na fi te ñooñu tey ñoo te temps boobu ñooñu ñemewu ñoo théâtre te léegi ñoom ñooy théâtre kat yi dof baara yogoo tamit nekkoon na fi mais dof yooyu di dof doful da nga leen a mës a gis si théâtre da ngaa mës a gis Kouthia dugg si théâtre yi ak comme nii mu aage bu ñu jaawale nit kuy dof doflu ak artiste nit def dara nga toppandoo ko yaa ngi dégg nga toppandoo ko baax na de baax na mais un vrai artiste mooy créateur. waaw léegi affaire Léna Gueye bi tey lan lan loo xam si ni tey moom war nga ko wa maanaam mën nga koo laaye biiree dimbalee ko ko moom en tant que jigéen pour mu pour parce que it may wax si société bi la bokk donc tey li may wax chaque jour bu dee ko bon ñu sànni dañu bu yàggee maanaam li nga yor lépp day daal di jeex mais comme jigéen la te te te ci réew mi la dëkk fi la amee mbokk fi la am lépp ban message nga fay la. waaw xam nga loolu. Euh, Janet Jackson mos naa joué benn film porno. Michael Jackson dafa préféré jënd conteneur ba yëpp lakk ko te leena moom amul milliardaire bu koy jëndalaat kaset yëpp parce que ñoom lu tuuti lool ci infidèle infidèle lu mu yàgg-yàgg dina dem ba xew yi parce que lu xew dana xew yi yaa ngi dégg bu xewee léegi mu xew yi dem yoonam image yi des fi ku munul jëndaat image yu leena ga yëpp munu jarul nga koy yedd amuloo leen loo koy yedde. ñu gis ne lu mel ni yàgg na ci série yi nga xam si ne mooy série sénégalais yi. mais bu ñu ko defee après du mujj fen mais dama ni ku simmi si li ba mu wane bajoom da ko koo a gis waa ji tamit doomaraam la waa yi simmi bu leen a nango nangoo nekk doomaraam waa ji waroon na bañ bu ma doon waa ji ma bañ du ma ko simmi. est-ce que nekkul leen it li nga xam ne moom lañ bind si scénario bi loola loola loolu la loolu la loolu la loolu la loolu la loolu la buy yeete. boo xam ne day wane ay ay awra day wane awra yeete amul fen réalisateur bi imbécile la. dama ne ñoom ñëpp ñi ko defar ak ñi ko defar war nañoo xool réalité réew mi ñu war ko def ñu bañ ko def bañ a def loolu. loolu du scénario xoola mosoo gis kuñ jàngal lekk liir bu juddu ñu dem ba nekk mag ñu jàngal ko lekk amul bu ëru lekkam jotee jote mu mu lekk waxal góor gu xam ne dañ lay jàngal ni nga yéegee ci jigéen kana la koy jàngal. di nga nangu takk sa jabar wala nga am sa gel nit yéeg di la wan nan lañ koy defee am na. a ah, yow it góor nga di. mu bu ndaw la mu yéeg si kaw ndaw si jàngal la nu mu koy defee ba pare ne la jëlal nii la oto dong laa ko gisee de waaye képp ku la jox jigéenam nga yéeg bala ngaa wàcc mu téegal sa ndey kon simmi silip jarul jàngal kenn yaa ngi dégg leena moomu boo ko laajoon simmi silip yaayam jàngalu ko ko bàjjanam jàngalu ko amul ko ko jàngal moo toog ba yëg boppam commencé simmi su laa jeexalee muy muy muy yéen waa waa Jamra parce que mën naa laa compter si Jamra comme parce que comme nee nga ko waxati Mame Matar Gueye comme yéen booba léegi lu fi génn ngeen génn wax ci lu fi génn ngeen nii la nii la mais est ce comme artistes yi ñoom ay artistes lañ te ci loolu dund est ce que jotul yéen ngeen bind seen ay scénario yoo xam si ni dafay jàngale ah, taarixu réew ak loo xam si ni donc dafay jëmale askan wi kanam donc ngeen ngeen fay artistes yi ñoom waa dama ne ñoom bañ nañ ko ba bu ñuy waxoon naa la fii ci Marodi wax naa ko waxati ko wax ko nit ñi nañ dem seetaan chronique bi def naa si lu bëri Marodi ma borom Marodi si boppam xamul sax nu ñuy defee film. yaa ngi dégg ñooñ fa jël ñëpp ay décor lañ mosoo leen gis si théâtre théâtre ñu ko rompen ñu ngi fi ba muy mitti ràng daar yow mii xam nga ci dara ñan ñoo ràng woon ma ci affaire théâtre daara musuma fekk fu ñu théâtre xaw may théâtre kat. wala ñun ñoo ràng woon muy metti ba ba fii mu yegg si mu yegg si fi suñuy defar film dañuy bañ nañ ko ba ñoom dañuy dem jël ñu xam ne dekoor moom na nga xees sa tadre rek nga lambar lambar yi mën a romb nit ñi xeesal ba mel ni golo gu ŋas ñu jël la ne artiste nga jeex na tàkk waaw gis nga ñooñu bu fekkoon ne affaire dañoo delloo mbaatu ca ndaa la ñu mën a wax mais duñ ko def est-ce que jotul yéen ñi nga xam si ni tey yéen ay Jamra maanaam ngeen wut seen ay seen ay scénario yoo xam ne day jàngale loo xam si ni tey day askan dañ ciy gis seen bopp ak yu mel waaw non man moom Jamra moom fi ma ci féete mooy fi ma la wax gis nga maam Matar Gueye Jamra képp ko xam ne génnati nga wax ko dara yaa ngi dégg ak kii naka la tuddati euh, euh, naka naka la tudd euh, sëriñ bi keroog te mu génn naan ñenn ñi ñu demoon soirée ba ña nga safara waay <laughs> mooy ki tojoon ki toj seen TV keroog. waaw nan la tuddati ah. Oustaz Lamine Dramé dama ni maam Matar Gueye Jamra Oustaz Lamine Dramé yaa ngi dégg ah, ah, ñoom ñëpp lépp lu ëmb Jamra képp ku leen tuddati wax si ñoom lu ñaaw su su pambaay yow laa wax de yow ak Adamo mayetuma kenn mu wax ci maam Matar Gueye Jamra dara ku ko si waxati loo ko war wax foo teppee ma xotti falaa yam aadamoo moomu ngay gis man maa ni góor jigéen la parce que def na fi voix topp ma ay ay lu mat une semaine di ma na dimbali ma nga defal ma vidéo nga wax ni du ma góor jigéen ma fay la iPhone jox la xaalis bu nekkul woon góor jigéen lu tax mu ma siy fay Pape Mbaye nee na góor jigéen yi wutuñu buzz dañoo am seen buzz ba pare yaay doomi xaj léegi amu leen buzz de da ngeen a yéem nit ñi parce que man xoola góor jigéen yi lu tax nee nga yow dañuy dugg sa page di emee sa kii ak yooyu góor léeg-léeg bu affaire bi dalay lay jaaxal ba nga xam ne yow nan la sa moroomu góor di mën a juutoo ay moroomu góoram di ko wër ndomba loolu moo la ja moo jaaxal nit ñi mais du buzz de du buzz bala nga doon xam ni buzz la nga taxaw Sénégal yow booba léegi Amérique nga toog di taxaw di wax rek boo duggee ci dëkk bi teg nga sa benn sa tànk bi nga njëkk teg moo tegal nañ sa ndey aadama woo tamit dootul ñëw Sénégal di fee rek lay toog di wax Adamo bu fekkee am nga fit ñeme nga billaahi wallaahi daggal bee nga ñëw seet si sa yaay xanaa na moo sa yaay na moo sa yaay waxal kaay seet sa yaay ñun ñu ngi nii dañuy seet suñu yaay num ñu neexee yow yaay saagaal góor jigéen ñëwal yow kii euh, Pambaay yow ak Adamo ay xool Adamo góor jigéen la faram Milan la nekk benn paamoo koy doxaan gel yooyu mu naan mooy laal gel yi billaahi laalu gel yi moom dañ koy laal dafa làqatoo gel yi dafa làqatoo gel yi ba pare ñi ngeen ñi ngeen ni saagaal fii yëpp ñoom ñoo njëkk a feeñal seen bopp affaire góor jigéen ñu jiñ leen affaire góor jigéen ku fi takk drapeau góor jigéen sa yore saagu góor jigéen di dox doxinu jigéen peew ba pare nit ñëw nga si dëkk fekk say baay fekk say maamaati maam di woy nga fekk leen ci way yi ñuy sol solin bu jekk xool ñu fi nekkoon Thione Seck yal na yàlla yóbbu ko àjjana Thione Seck damay ñaan Sénégal gépp ñu dellu ci kasetam yi di ko déglu téere la daan woy Thione bu daan way day sol bu taxawee nga xam ni góor moo taxaw mais sol sa tubéy ju sew joo xam ne boo koy sol da ngay tëb di wàcc dañuy ñod di ndayam ngay tëb di wàcc di tëb di wàcc di fexe ba mu dugg si sa biir am na ñoo xam ne dañuy xotti tubéy ji sol ko ba boore ñu doo koo ñaw seen kaw te mu peew xam nga peew lu ko indi parce que bu ñu lay yàgg a ñam ci sa ginnaaw day dem ba day dootoo ko mën a téye léegi boo kuusoo il faut nga sol peew bi pour mu téye pour mu téye kuus bi pour sa day yi du sànni moo fi indi peew képp kuy peew góor jigéen nga man maa la ko wax waaw képp kuy peew ba non mburu mi après dinañ si wax de mburu mii mburu man man mburu mburu mii mburu mi ñu ndékkee wala mburu mi ñuy ndékkee parce que nguur gi bu ñëwee 2018 ba léegi mu def saaku mburu euh, saaku saaku mburu bi fa saaku fariñ bi mi ngi ko def 18000 17000 et quelque léegi bu ko defee ba pare fariñ bi mu leen di jox taxul mu demee noonu man maa ngi nii tey tey jii daa amul qualité wala lan la tey jii lakkatu mburu yi ñoo am lu leen naqari ba mu ngi nii man maa ne leen SBT Média dafay ñëw mu ngi nii vocal yaa ngi nii ñoo ma ko jox mu ngi nii saway waay werente xuuxaan tekki tubay ba pare dix-huit mil ah mu ngi nii yow yow boo leen defalee saaku mburu ñaata dix-huit mil ah ba pare ne leen mburu mi si boppam ana waa mburu ma sax voilà mu ngi nii dégg nga ko nii actuellement ñoom lan lañ bëgg léegi. liñ leen di jaayee saaku farine bi dafa seer ba pare ñoom bu ñu jëlee mburu bi dañuy jël lu tuuti xaw man lan du mat sax ay garaam taawi ko bu ñu ko taawee kay mburu mi xott lay nekk ba pare ñi ci doon liggéey bu ñu toogee nag bitik amatul droit jaay mburu ñoo ñu doon jaay mburu yëpp di ci teral seen waay seeni wayjur di ci teral seen ask seeni seeni jabar ñëpp léegi lan la ñuy dem defi dañuy dem nekk semeur quoi waxal xam nga la nguur gi nañu wàññi nañu wàññi yi chinois yi fulla bi ñu am ba lépp luy bele ci àdduna bi chinois yi jënd nañ ko yóbbu turki moo fi am turki moo fi am bele bu baax te bele boobu nee na pour boppam la lii Sonko di wax maa ngi koy doog a gëm gis nga réew si boppam bu fekkente ni li muy dundee da koo bëgg a wékku ci moroomu réewam dama ni réew moomu du avancé du avancé il faut ñun ñu gëm suñu bopp bàyyi tubaab yii te jéem a xool li ñu am ñu jéem cee dund dimbalante suñu biir sénégalais problème am mooy esprit de partage amu ko esprit de partage lañ amul ñii di liggéey si mburu mi ñu jox leen seen ak wàññi leen ni mu war a demee kilo léegi dem na deux cent deux cent lay dem deux cent lay dem deux cent lay dem dëkk bi métti na ba fu métti yam xaw ma kan moo mën a dem si Macky sàll wax ak moom mais Macky Sall mii xawma fu noppam nekk mais su ma xamoon noppam ginnaaw géej la nekk dinaa féey ba ginnaaw géej ma wax ba pour mu dégg ko barke rasulilah nit ñi sonn na baax gërëm na la li ñu mënti waxtu li ñu cërale woon xaabaabul nan mais dama koy wax chaque jour ki ni invité mooy toll muy jumboori mais ñu bàyyi la nga tàggu mbokk internet yi waaw man maa ngi leen di tàggu di leen wax ni bàyyi leen xel am na ñuy takk góor ñi bàyyi leen xel loolu am na jigéen ñuy takk seen moroomi jigéen léegi am na imaamu góor jigéen boo leen ko déggee mooy imaam yoo xam ne saa boo waxee ba d'accord parce que waa ji bi ma waxanteek moom ba d'accord nee na ma am naa imaam bu koy xutba loo imaam bi nag bii di ñëw dinaa wax turam te dinaa ko wax maam Matar Gueye Jamra yow moom di takk ñiin wax nañ ma sa tur xam naa fi nga nekk dinaa wax maam mataar Gueye Jamra fi nga nekk turu maam Matar Gueye dinaa fexe ba wax ko fi nga nekk mu ñëw doxaan sa ndey comme yow yaay takk sëy ñoo ma ko wax ne ma boo d'accordee am na kuy fekk dama leen nax ma ne ko waa yow ñun ñaar kay sëy foog mu dagan mu ne ma loolu du problème am na imaam boo xam ne bu ñuy sëy moom mooy daganal suñu diggante si laa waaru man mbokk internet xel SBT jimboor lañu amoon tey ci seen émission nay riir di jox dig daje ak beneen daanaan ci SBT Média di leen ngeen kon ne abonné ba seen tuuti ko notification bu ko defee vidéo nga xam ne SBT mi ngi dugal dig daje ak beneen daanaan ci SBT Média jimboori jërëjëf kontaan nañ saa la wooyee rek nga nga kii nga disponible di jaajëfal nag sama réalisatrice yi tey ku si mel ni Aji ko si mel ni ah, ah, Fat Bintu ah tey dafa daal ay SBT ay jinn lañ ay ndaanaan laa am tey mi ngi noonu acca dig daje ak beneen émission ak beneen ndaanaan ci SBT Média jërëjëf